bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa xabibina wa shafiicina wa mawlaana Muhammad ibn Abdillah wa ala aalihi wa sahbihi wa sallim. ixwatil kiraam saadatul ulamaa ashaabal maali ayuha saada asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi tedd yi nuy déglu ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaar di leen balu àq te di leen bal àq di ñaan yàlla yàlla na nu yàlla boole jéggal Sud FM seen rajo 98.5 kaddu gi bàyyi koo fii ci ndakaaru dellu siwaat na ak yéen seen émission bi ñu tuddee jaar-jaar yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñu gën koo xam ci xisasul anbiya te seen mbokk Oustaz Alioune Mbaye fas yéen cee feggoog yéen incha allahu ba waxtu wi jot ginnaaw loolu nag ñoo ngi doollee ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër doollee ñaan sunu borom subhaanahu wa mu doollee faj aaju yi teggiti si saafara jàngoro yi jéggale bàkkaar yi ñaan ko mu gën ñoo xiir ci boppam aar ñu làq ñu fa yàq yëgul yàlla bu nu yàqu yàlla bu nu yàqule yal na nu yàlla musal ci mbas yal na nu yàlla musal ci balaa yal na nu yàlla musal ci fitna yal na yàlla musal ci gàcce àdduna ak alaaxira yal na yàlla musal ci feebar corona virus moo mbokkam ak xeetam bi jaay sadil wujudi wa alami shuhud yàlla ñu ngi lay ñaan yàlla nga dox suñu digganteeg moom yàlla nga dox suñu digganteeg coronavirus ak xeetam ak lu mel ni ñoom ginnaaw yow yaa moom lépp bind lépp dogal lépp àtte lépp te sa dogal bu xasee ba xam ba ba am sa dogal bu xasee ba ba ba wàcc kenn mënu ci dara ñu ngi lay ñaan ci sa yërmande ak ci sa kàttan coronavirus nga dox suñu diggante ak moom yàlla ñu ngi làq sa ginnaaw yàlla nga nu làq yàlla ñoo ngi xettaliku sa ginnaaw yàlla nga nu xettali fépp fu mu àggoon di fa lor yàlla yàlla nga ko yàlla nga ko faj te jële ko fa fu mu àggagul itam yàlla bu mu fa àgg bi jaay sel wujudi wa alami shuhud ndax yow yaa bind lépp lépp lépp yaa ko bind waaye nag seetal nga sa bopp zaharal fasaadu zaharal fasaadu fil barri wal bahri bi ma kasabat aydi naas loolu leer na nañ li leen dal du yow ñu na ñun ñii la ginnaaw nun la nag ñoo ngi lay tuubal di la jéggalu di sukkutey raam di toroxlu di fësal sunu néew doole ak sunu néew kàttan ci lépp loo xamante nii jóge na ci yow mëneesu ci dara lu may ñaan la te xam na ni lii fitna lu goo xamante ni moo la mbugal moo xamante ni mi ngi bàyyi ko ci yow ak ku ñu ko mën a jiiñ lu mu ca mën a doon rek day fekk yow mu neex la ndax wa ma tashauna illa insha allah dara du fi sax lu def laa neex nit xamul dara mënul dara lu fi nit créé ba def ko rek sa loxo ca dugg mbaa sa yërmande mbaa sa namm namm comme nag ñun xam na ni lépp yow a noo ngi lay ñaan nga xettali askan wi wépp nag ndax boo nee jullit sax mu xat boo nee sénégalais mu xat waaye mboolem fa être humain nekk ci àdduna bi ñëpp yàlla ñi la gëm ak ñi la gëmul ñàkk laa xam rek sax moo tax ñu lay ñu lay weddi waaye coronavirus bi war naa mën a tax képp ko naan jee n'existe pas war na ko tuub de xam ni xakañ bel bien jee existe mi ngi nii waaw kon nag. ku la xamul ku nekk bind na bind na loo war a xam ku la ragalul ku nekk bind na loo ragal ñi nekkoon jàppoon ne àdduna bi moom kenn amu fi baat ñëpp tey xam nañ ni coronavirus mii ku ko mën a gis yaa ngi koy mën a gis rek xëy na ci ci ci ci appareil yi nga xamante ne ci la xoolee virus ci nga koy mën a xoolee waaye gis ko ni jaxaran mënul am te kooku ci jaam yi gën a xiiboon ci sa jaam yi ci la bokk kon yàlla ñu ngi lay ñaan di làqu ci sa ginnaaw nga rusañu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun jullit yi mi nga xam ne nga doon koo sopp bëggal ko sa bopp yàlla nga nu làq ci ginnaawam làq ñu ci sa ginnaaw téenu dox suñu diggante ak moom muy virus bu mu ci mën a doon nag virusu choléra coronavirus nekk yuuxu malaaka tremblement de terre lakk lab feebar bu kenn mënta faj yàlla yooyu yëpp ñu ngi lay ñaan nga xeet la ci Euh, askan bi yëpp ginnaaw coronavirus bi yàlla nga may nu nag waamew ndox wu wu wu neex ndox mu barkeel lu waay ji mu sax lu waay béy mu meññ nga barkeel ko garab yi sëq ñi war a meññ meññ jur gi duuf nga ba pare giir nga barkeel commerce bi barkeelal ñi yëngu ci wàllu commerce barkeelal transporteurs yi barkeelal mboolem ñi nekk économie yi ñiy def économie ñëpp journalistes yeeg patron de presse yeeg gouvernement beeg béykat yeeg nappkat yeeg sàmm ñëpp kenn ku ne yàlla nga xëpp ko waamewu barke ak barkeelle ba kenn ku ne la nga yor duwoon barkeel ba doota soxla lu keneen yor ginnaaw loolu nga tàppe sunu xol yi nag raxas ci ak ak ñuul ñuul raxas naa féq ak bëgg àdduna wax lu am ak jayante ak xeexante reyante yàlla nga raxas suñu xol yi ba ñu jeex takk te nu bëggante te soppante yàlla ñu ngi la koy ñaan yàlla nga nu ko defal bi rahmatika arhamar rahimin ya rabbal alamin bu loolu weesoo mbokk yi ñu ñëw ak yéen nag ci waxtaan wi nga xamante ni moom la dooroon dooroon yoon yontu yàlla ayub alayhi salaatu wassalaam waxoon nañ leen askanam waxoon nañ leen tam eh, fu mu tolloog nu ko yàlla nattoo woon ndax moom jëmm la joo xamante ni yàlla moo ko nattu woon nattoo ko feebar boo xam ni feebar bu metti la bu doy waar mu muñ ko nag ba mu ko muñee nag ginnaaw ba la ko yàlla dellowaat lépp loo xamante ni nangu woon nañ ko ci moom ndax yàlla moom day nattu ab jaamam waaye bala ñoo ñëw ci ni suñu borom joxe xéewal ga nu ñëw aslëf nag ci moom te jéem ko tënk incha e, foo waxee nag yonent yàlla ayuba di nga wax muñ te muñ boo ko waxee di nga wax sant ndax asabru ma ashukri muñ ak sant ñoo ànd sant yàlla ci xéewalam moo tax bu la yàlla nattoo nga mën a muñ bu dee xéewal gi du la jay du la rey du la tax nga def naka su dul noonu wala nga génn topp wala nga def njaay àll xam ne lii indiwoo ko fi te doo booy dem doo ko yóbbaale nga sant yàlla ci mi la ko jox moo tax bu la yàlla nattoo boo amee nattu rek nga mën koo muñaale waaw nga mën ko sant waaye bu fekkente ne da te fi nga juddoo judduwaale woo dara nga màgg yàlla mën la gan boo moytuwulee booy boo ñi gor yi toxu ba nga ba keroog ngay kii ndax. juddu boo xamante na nga juddu ci pàkk kerte ndeng yoroo dara soo amul éducation de base amuloo diine yaru ñu la ci yaru diine boo moytuwulee rek nga def musiba ndax la nga ñàkkoon lépp ci sa ndaw wala ni nga juddoo fekk say waajur nekk nit ñu eh, ñàkk alal da ngay yaakaar ni loola li koy mën a faj rek mooy na mu demee woon démb moom ngay bëgg daal di indi waa commencé rankinti nit ñi bala kenn jot sa dërëm daw ba bëgg a dee bala ngaa joxe dara ci mbooloo néew na daal booy amee booy amee ngërëmu yàlla loolu nag dal woon yont yàlla eh, yont yàlla ayuba nit ku baax la woon nit ko amoon teraanga judd fekkam baayam am lu bare bare bare bare bare bare moo tax bi ko yàlla nattoo mu sant yàlla yàlla gërëm ko moo tax bari ku defee nii feebar bi ñuy dal gàcce la mbaa lu ñu war a daw la mbaa complexe la déedéet yàlla yef maa yashaaw yàlla lu ko soob lay def lu lu ku ko soob lay def gis nga fi ne ñun ñëpp ñu ngi kërti kërti naan ceeb bi nanuy séddoo ceeb bi nanu defe nag ceeb bi waaye gis nga nanu ko ñaan nanu ko ñaan rek nanu ñaan yàlla yàlla nee na mën naa bàyyi ngeen joxe li ngeen am lépp lépp ba defee ne pare ngeen ma door a yokk sama volume bu ma boobu waawaa fu ñu jëlee lu ñu joxe bu ngeen waqoon seen kees yi ngeen am yëpp jox ko askan wi yàlla taxaw fa mu taxaw ba ngeen jeexal tàkk fu ngeen di jëlee jëleeti dara dara yonent yàlla Suleymaan dafa am benn bis mu ne yàlla dama bëgg sa mbindeef yi ak jaam yi nga wax ma nu ñu toll ma berndeel leen nag ndax ma jaamoo la ko sunu borom ni ko ca bismillah dinaa woo ñëpp ñu ñëw Suleymaan amul lu mu toggul togg na mbana yi mu togg da boo ko doon riime dana dem fii parce que mën naa la ne ak Louga mbaamu mu àgg sax Saint-Louis ndax Suleymaan jinne yeeg ñëpp ay taalibeem la ñu woon waaye bi ñu demee ba commencé takk ak a yekk benn jaam bu xiiboon moo génn ci géej gi wax nañ ni ñi nee nañu siñeel la ñi ne ñu bonaat la ñi ne waaye jaam bu bu bu bu bu xeebu moo génne ni fuuf cin yëpp lekk ko bay ñiitaatu te naan waa kañ la añ bi kañ ngeen di yekk Suleymaan ni këpp daanu ci suuf dañu yàlla dëgg-dëgg <laughs> jéggal ma baal maaq moom laa leen moom laa bëgg wax ñu xam ni Amérique France Europe Chine cinq continents yi ñëpp muy Afrique di Europe di Amérique di di di océan yi ñoom ñëpp laa wax suñu àndoondoon ñu wëq seeni kees yëpp jox ko askan wi yàlla mën na ni cell ba ngeen jeexal tàkk ba amatu leen tus mu dog leen xool ba xam fu ngeen di jëlee lu ngeen di amee kon nanu ko ñaan yoon wi gën a gàtt te gën a yomb mooy ñu dellu ci moom ñaan ko mu yemale fi lii ndax àttanuñu ko mënuñu ko taluñu ko ñii wax ñu ci bari nag déggugoo mukk ñu boole yàlla ci mbir yi seen pexere la ñuy demee waaye pexe day jeex pexe day jeex ko nanu delloo mbir mi ci loxo yàlla nanu ko ñaanal di nuyu bu baax nag sëriñ Muntaxa Mbàkke ibnu Cheikh si Mahamadul Bachir ibnu ibnu Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul li mu def def ko ci umma islamique bi ñëpp la ko defal ñu sant ko ci bu wér a wér a wér wér ñaanal ko bu baax a baax a baax a baax noonu rek la ñu ci yéen nag te mi ngi yaa ngi def lala war te boo ko defee defaale nga ko ñëpp ñëpp nga ko defaaleel ndax umma islamique yi ñëpp benn lañu kon ñu ngi lay sant Mbàkke di la gërëm bu baax a baax a baax di la naw nag lool nag wax dëgg yàlla jërëjëf nanu dellu ci yàlla rek waaw nanu dellu ci yàlla moo tax sant gi gi gi nga xamante ni moom la euh, ayuba doon sant suñu borom mooy ba mu ba mu ba mu ba mu ku yaram wu yàlla dul nattu wala jëmm ju yàlla dul nattu rek yàlla bëggu la ñu ngi leen nettali ne benn shaayir benn waxkat dafa wax ni waa aqrabu li siraati rahim shukru ibaadihi ala naim walaw alima annaasu bi ma fi shukri la kaana malja lahum fi daarin mu ni yoon wi gën a mën a àggaleb jaam ci yàlla mooy sant yàlla sant bi jaam bi jaam bi sant gi muy sant boroomam ci xéewal yi mu la defal mu ne bu fekkoon nit ñi xam nañu li ci sant dëgg dëgg dëgg dëgg danañu def seen giirug dund lépp lu ñu def rek def ko cant mooy sant suñu borom subhanahu wa taala asabru afdalu min ashukri waaye nag sant lu mu baax baax baax nag nee na muñu ko gën muñ moo gën sant baax na trop waaye muñu ko gën li anna shaakir ma almazid ki nga xam ne nii moom day sant mooy ki am ba téye di sant nag ngir bëgg ñu dolli ko waaye wa saabir kii xam ne mooy muñ nag mooy ma allah asaabiru ma allah inna ki nga xamante ne mooy muñ mooy ki ànd ak yàlla waaw yàlla nee na maa ngi bokk ci écurie way muñkat yi xam nga dana écurie séeréer rek écurie waalo waaloog écurie faas ak écurie pigin yàlla nee na man ci ñeenti écurie laa bokk inna laha ma al muttaqin ikkiri way ragal yàlla ña maa nga ca inna laha la ma al muhsinina way rafetal ya maa nga ca inna laha ma al sadiqin ikkiri dëggu ña maa nga ca inna laha ma al sabirina ikkiri muñ ya maa nga ca kon ñun bu nu muñee rek ñun ak yàlla ñooy bokk écrit te ñu bokk écrit du ñu bëree te ku am ak fas indi ku indi ñaan ku amul ñaan indi moo tax mu ni qaala allahu taala la in shakartum la azidannakum bu ngeen santee rek ma dolli leen bu ngeen di sant rek ma leen di dolli kon nag nañ sant suñu borom subhaanahu wa taala inna laa maa saabiriin yàlla nee na maa ngi ànd way muñ yi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na inna allaha isa ahabba abdan ibtalaahu wa isa ibtalaahu sabara yàlla nee na bu soppee ab jaam rek dina ko natt yàlla nee na ku mu bëgg rek nattu na la yàlla nee na ku mu bëgg daf lay nattu waaye ku kuy dund teg amoo nattu amoo benn jafeñ-jafeñ booy ba nga tiit ci sa bopp inna allaha isa ahaba abdan ibtalaahu wa isa waaw yàlla bu soppeeb jaamam rek da koy daal di nattu bu ko nattoo nga muñ am na jenn jigéen ju baax joo xam ne nii dafa am boroom kër sëy bu neex wax dëgg yàlla boroom kër gi du jeexalul dara yor na xaalis tabe na dund bi doy na lekk gu baax mu koy xottil lu mu bëgg ak i mbokkam mu taxaw ci seeni bokk bëggante sëy bu neex wax dëgg yàlla waaye benn bis nag waa ji dem tukki ñibbisi bi mu ñëwee soxna si tànk ndox di ko jox na man dañ toog di waxtaan ba yàgg mu ne ko may ma ndox soxna si ñu ñokkee jom di ko may ndox mu naan ci diggante bi ko soxna si may ndox waa ji for nelaw soxna si ñëw ba tiim ko gis ko mi ngi nelaw mu téye pot bi rek yeewu ko jox ko ndox mi waaye mu taxaw rek téye pot bi téye pot bi téye pot bi ba jëkkër ji ximmali ko ci nelaw rek daani ko lii lan la mu ne ko nijaay danga sonn danga sonn ma ñëw rek diggante bi ma lay may ndox rek nga for fi bët wax dëgg yàlla sama ker sama yu ma ma yee la moo tax ma ñëw naa taxaw rek ba nga yeewu ah jëkkër ji xanaa kontaanati lool bég daal di daanu jël ni ko yow day ba nu àndee ba léegi ci lu ma neex rek nga nekk ci lu may bégal rek nga nekk dama bëgg léegi nga wax ma loo bëgg ma defal la ko wax ma loo bëgg rek ma defal la ko soxna si ne ko nijaay li wax de mu ni ko maa ko ko dama bëgg nga may ma sama baat waa ji ne bëri ne ko nga ni mu ko dama bëgg nga may ma sama baat yaa wax lu ma bëgg de waa ji ne ko ah wax nga dëgg de maa waxoon loo bëgg de waaye léegi nag du ma la mën a may fii baat nan dem ci ña ñu mayee woon ma wax nga wax bu ma la mënee may ma may la waaye dang man nag fi ma doon séen toog fi nga génn du foofu ah yaa wax yow daal yaa wax yowaa rek ñun koy daal yowaa rek ñu xëy génnee mbaam mi takk di war jëm ca dëkk ba fi ndaw si dëkkoon fi ñu ko mayee woon bi ñu dem ba ci yoon wi ñu ronu génn garab xam naa jëkkër ji di xalaat kii lan laa ko war a def lu tax ma ñaan baat ak lu xew seytaane jot moo ko dugg ndekete am na benn car car ci garab gi bi ñu ronoo garab gi car bi lonk waa ji dal ci kaw jébi mu xaañ ko bi mu ko xaañee deret ji tasaaroo mu ànd ak jabar jëkkër ji daanu ci suuf mbaam mi taxaw mu jóg ndeysaan moom soxna si foq mu suuram di ko di ko takk di ko di ko fompal deret ji di ko fompal deret ji ba deret ji dal mu takk ko ñu ko nag nijaay léegi nan delluwaat ci kër gi mu ko nan delluwaat ci kër ga mooy waxi lan mu ne ko delluwaat ci kër ga mu ko may ma baat yow yaa ngi ni ma may ma baat ba ñu dem dëkk bi eggagu ñu nga ma nan nan wàññeeku lu xew wax ma loolu daal ni ko li taxoon ma ni dama bëgg nga may ma baat yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ni yaram wu yàlla dul nattu barke nekku ca ma xool xam ni at yi ma ànd ak yow yépp muy neex dara naqadiwul mosoo am nattu mosuma gis ci yow benn gàllankoor ma xam ne yàlla bëggula ak lu sëy bi neex neex nag yàlla bëggula ndax yaramu yàlla dul nattu yàlla bëgg ko waaye comme tey nag xaañu nga ba ma gis sa deret kon xam naa ni yàlla bëgg na la nan ci say ba gisal jigéen ju baax mooy dimbali jëkkëram ci yamale bëgg-bëggam ci di ko xiir ci jaamu yàlla ak di ko def loolu dagan ak di ko def loolu lew waaye jigéen jooju de bu fekkoonte ne soo ko tax a jóg day daal ba naa daal rek ndaa ta lax ngay dem a dem ba dugg ci kàmb goon wante génn nag mu ànd ak bokkam tas dem toog mbaa mu ne ba nga def def ma la ko sama yoon nekku ci yaa lu ma neex man santuma la ko waaye gi nga jigéen ju baax ngi ni moo tax ñu ne jabar des kay tànn ngir ngir ngir ëllëg moo tax sëriñ Babacar Si radiyallahu taala daawoon wax ni man de jaaxle naa ci seen àdduna bii ndax àdduna boo xamante ne nii jullit yi nangootuñu nattu te góor yi nangootuñu tuuma mu ni nattu alali jullit la tuuma alali góor la jullit boo gis dañ koy tuumaal léeg-léeg ñu teg sa der loo xamante ni mar taali léeg nit ñi naase la erreur léeg-léeg naa léeg loolu boobaa da xam ne rek alalu jullit moom tuuma la waaw alal alal nattu la nattu la alal julit nattu la foo ko fekk jëlal julit day dund nattu comme nattu bi nga xamante ne moo fi dal muy corona ak yu ni mel nattu la rek nanu ko muñ rek bu ñu ko muñee rek mu jàll. ni ki noonu it tuuma alali gor la gor gu jàpp njàmburam ci këram demul dikkul toog jàpp sa njàmbur néew na bu nit ñi maandoo ci yow faaw ñu baatal la boo duggee ci kër ñu ne gis nga ko de. moom de gis nga de kër gi moom bëgg na fi de moom koy heure bi rek la fay dugg yoor yoor rek la fiy ñëw de ah gis nga ko daal ñii mu ngoog boo tooy jàpp sa njaambur ñu ne gis nga ko de yëg boppam rek faarewul dëkkandoo du nuyu kenn du dem ci xew moom kay moom kii nag amul fenn fa sikkim di sedde amul fenn fa sikkim di sedde moo tax suñu baabu kër ni nattu alali jullit la tuuma alali gor la moo tax qaal muhammad ibnu mas eh, maslamata laa xayra li abdin laa yashabu maaluhu wala yaskamu jasaduhu ku jox muhammad ibnu maslama nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yaramu jaam bu dul dund nattu alalam du yàqu du dudd feebar nee na yiw nekkul te jooja jëmm yeneen ci yàlla musal moo tax ma ne inna allaha ida ahaba abdan ibtalaahu yàlla bu soppee jaamam rek nattu ko wa iza btalaahu sabara te bu bu la nattoo rek nga muñ te boo muñee rek am gain de cause munu an wahb radiallahu anhu qaal qaal muusa alayhi salaam yowma tuur allahu taala yaa xadiratu lqudsi qaala muusa yaa rab man yaskunuha qaala ashaabul masaa'ib qaala sifhum lii sifhum lii fa qaala hum isaa asaabathum baliya sabaru wa izaa an'amtu alayhim shakaru xaysu qaal subhaanahu wa taala wa izaa asaabat musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un nee na jële nañ ci wahab radiyallahu taala anhu mu ne yonent bi saa sallam nee na yont yàlla Moussa bi muy dem di jëli Toora les dix commandements ya ca tuuru Sinaay bi ko sunu borom recevoir dafa ne yow yàlla yow sama boroom maa ngi lay laaj te di la ñaan àjjana kër ya fa nekk nañu bare bare bari gan kër moo la ci gën a neex boo doon nit di dëkk fan nga fay dëkk suñu borom ni ko yow Moussa kër gi ma gën a neex ci àjjana mooy quartier bu ñuy wax xadiratul quds xadiratul quds yéen yàlla Moussa ni ko yow sama borom kër googu ñenn ñoo ko war a dëkke suñu borom ni ko kër googu day ñi nga xam ne ñoo koy dëkke mooy ñi nga xam ne dama leen di nattoo musiba ñu dee ci musiba comme musiba épidémie peste choléra coronavirus yu ne mel yu ne mel yu ne mel nga xam ne ay balaa la di mbugal nee nañu ci dee tey jullit nee na ñoom ñooy dëkk ci kër googu mu ni ko sunu borom ni ko ñooñu mooy ña nga xam ni su ma leen tegee balaa ñu muñ su ma leen xéewalee tam ñu sant kon gis nga daal ngay daal di am léegi euh, xéewal ka nga xamante nii boo amee musiba muñ su amee xéewal sant sa borom moo tax wa bashiri sabirin allazina hum isa asabatum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ni gi noonu sunu borom ne ko nag haulaayi sukkaanu xadratul quds ñii ñooy ñi nga xamante ne ñoo dëkk ci xadratul quds kon yonent yàlla ayuba alayhi salaatu wasalaam yàlla tagg na ko ci muñ gu mu muñ ni'mal abdu innahu awaab sama jaam bi daal gàcce ngaalaama lu ma ko teg nattu rek lu ma ko teg rek rek mu muñ rek ayuba alayhi salaam euh, yaayam yonent yàlla lut moo ko jur soxnaam aawam amoon na ñeent walla ñetti soxna waaye aawa bi doomu yonent yàlla yusufa moo ko jur xam kon ibnul karim abnal karim dañ doon wax a ngi noonu yuusufa yaqub moo ko jur mu bokk ci lañ doon wax ni yaa bani yaa bani israil uskuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa inni faddaltukum ala alamin yonent yàlla ayuba bàyyam ku bari woon alal la bàyyam ku bari woon teraanga la bàyyam ku bari woon surga la ku siiwoon la ku ñëpp xam famille bu am doole ci la bokkoon bi baay bi faatoo mu donn alal ji faf nekk ci ku am yërmande di dimbale bokk ko ñépp lekkul bàyyi kenn faf yàlla def ko ab yonent mu doon am yonent nag faf mu uuf ñépp nag doon bàyyi ñépp defal doon di defal bàyyi yàlla jirim yi miskin yi ni ki noonu ñi néew ji doole faqir yi ak veuve yi ñi nga xam ni ñëpp tabaarakallaahu ah, néew nañu doole yont yàlla ayuba uuf leen ah téye leen boppam ayuba mujj na nekk kilifa gu mag yor ay soxna réew mi ñëpp ah, nawloo ko mu uuf baayoo yeeg veuve yi comme ni ma ko waxee léegi def ko kilifa gu mag mu samp kër am ay soxna ak njaboot foo tollu di séen lu ayuba moom ci alal ay nag ak i xar ak i gàtt giléem bépp xeetu malawu dagana moom ayuba amoon na ci lu bare bare bare bare waaye nag alal jooju nag lu mu bari bari bari musu koo soppi musu tax mu soppi ko jikko musul wane ni man maa mel ni mbaa mbaa mbaa mbaa maa am lii déedéet fu mu toll rek mu ngi tudd yàlla ci làmmiñam ak di ko fas ci xolam boole ko jëfe nit ñi sopp ko lool comme ni ko waxee waaye yàlla bu nammee mbir mooy xam fu muy jaarale mbiram bi yàlla nammee ayuba am tur am am tagg ndax comme yonent yàlla daawuda waxoon na ko yàlla ni ko dama dégg nga tudd samay maam rek téere boo yónnee rek tudd leen ca ibrahim ishaq ismail dama bëgg nga tudd ma mayit mu ni ko samay cër dama koy may dama koy jaay mayewuma ko ca la ko yàlla nattoo woon nag bi ko yàlla nattoo tam mu muñ nattu ba suñu borom ni ko nag yaa daawud inna jaalnaka xalifatan fil ard kon tax dina koy tudd yonent yàlla ayub itam yàlla bu nammee ci moom teraanga wala mbir noonu rek lay def ba loolu amee sunu borom mooy wax ni inna innama amruhu izaa araada shay'an an yaqula kun fayakun yàlla moom lu mu namm nekk loolu day daal di nekk yonent yàlla ayibu daana tagg yàlla fu baatam toll daan wax ni ilaahi haasihi ataaya li ibaadika si nit dunya fa kayfa ataayaaka fil janna li ahli karamatika yàlla de lii nga ma jox ci àdduna rek nga ma ko jox yow yaay seet sa jàmm bu neex nga defal ko teraanga yëkkati ko ma ñëpp seen ko àdduna bu xat bi nga xam ne daanaka kaso la nga def ci nit nu la neex gàcce ngaa laa ma mu yow kon da koy ëllëg bu ñu demee fa ñëpp soxlaa teraanga boo xoolee ku la neex ba def ko teraanga kon xanaa ko dana nekk biddéew ñëpp di ko séen jërëjëf yàlla di sant sunu borom subhaanahu wa taala mu toll waaw mu ngoog fii diyaafati ci këru ngane la ga waaye ma haza kullu ànd ak lii lépp nag laa yaxfalu qalbuhu an zikrillah xolam musul tayyeel wala mu sàggan ci tudd sunu borom subhaanahu wa taala mukk ci àdduna laa yaxfalu qalbuhu an shukri nicmaihi wala fi lisaanihi wala fi qalbihi daana tudd yàlla fu mu toll di zikkar loolu nag tax na noonu yàlla bu bon bii wala noonu doomu aadama iblis mu bon mii nga xam ne laanatullaahi alayhi yàlla na rëbbug yàlla sax ci moom nga xam ne noonu doomu aadama la daana wax ne inna ayuba zahaba bi dunya wal axir ayuba day raw na yàlla defal na ko teraanga ma ngay jaamu yàlla ca teraanga ja kon nag yàlla dina teral na ko fii te bu ñu nee ëllëg bu ko teralee mu gën a tedd kon am na àdduna am na alaaxira ci la dogoon nag moom iblis mi nga xam ne noonu doom aadama la nga xam ne dañuy su sañoon doom aadama du am jàmm mukk ci àdduna ci la dogoo moom iblis daal ne kii dinaa ko yàqal ci àdduna mbaa ci alaaxira dinaa ko yàq lenn ma yàq alalam moo perte mel ni ñëpp ndóol mbala ma jey ko ci alal ji ba mu perte fële mu jëm waaye ñaari teraanga moom du ma ko seetaan noonu nag mooy mission am moom moom Iblis loolu mooy mission am wa kaana la wa kaana laanatullahi fi zalika zaman yasadu yasadu ila samai saabi wa yaqifu fi ayi makaani shaa fa saada yowman kama kaana yasadu fa qaala lahu rabbul izzati wal jalaal yaa lain kayfa raayta abdi ayuba fa hal nilta minhu shay'an fa qaal inna ayuba yaabuduka li annaka aataytahu saatan fi dunia wal axir iblis amoon na pouvoir avant yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam doon ñëw mu daan naaw ba ci asamaan ya di dem ba ca kaw waaw amoon na boobu pouvoir moo tax boo demee ci sotul jinni sunu borom neen inna kunna naqudu maqaidan lis sami fa man yastami al an yajid lahu shihaban rashadan bi yonent yàlla Muhammad waa ji ñëw ñu koy préparé jinne ju musan yéeg malaaka yi ñoo leen di caw ay jum di leen sànni ay jum bi ñëw na ci seen boxaaba ne la ñu daa waroon a yéeg di jëlee xabaar waaye léegi de moom ku dem day dana caw caw yoo xam ne doo ko dolli xamul nag ah, ah, ah, asharun urida bi man fil ardi am arada bihim rabbuhum rashadan ñun daal xamuñu lu ci yàlla namm waaye daal daan yéeg leen jox xabaaru yonent dana am wala nangam dana am mu leer naññ mënatuñu ko yonent yàlla Ayubu nag iblis mi amoon na boobu pouvoir maanaam yéeg benn bis ba ca kaw asamaan si suñu boroom ni ko yàlla in yow noonu yàlla bi euh, kay faraayta ab di ayuba gis sama jaam ba ca kaw suuf te ñu ko ayuba ndax man man nga ci moom dara mënoo ci moom dara de jaam boobu de moom ma nga may sellal ma ngay def la ma bëgg ma nga sama waaw bàyyi na samay tere Iblis daal ko yàlla nu muy def yaa ko beral loxo yaa ko beral loxo yaa ko jox alal jubbante ab xolam mu lay jaamu yàlla waaye boo ma mayoon occasion ci moom du la topp ndax man sama sama sama sama objectif mooy képp kuy doom aadama ma fexe ba ba ma la dugal la safara bu ëllëgee maa yooyu ñu ànd man loolu rek laa bëgg sunu borom ni ko mënoo ci moom dara mu ne ko yaa waaye xam nga bu amoon bu ndóoloon comme ñëpp ba dootul tal dara lu may daw dërëm ak wut lu mu am kon doo doo kon dootu la jaamu sunu borom ni ko waxuloo dëgg sunu borom ni ko mu ni ko lawlaa law kaana zalika lam yaabudka fa huwa fi laafi loolu rek tax mu lay jaamu bu doon loolu du la jaamu de fa qaalu subhanahu wa taala yaa lain fa inni aalamu annahu yaabuduni wa yashkuru lii wa lam yakun lahu saa fi dunia kàcc nga wax loo dëgg jaam boobu ñuy wax ayuba jaam bu baax la ku may jaamu la ku may sant ci samay tranga bu amoon alal ak bu ñàkkee alal yépp booba jaam xol ba ak ruux ga maa ca nekk keneen nekku ca sunu Iblis daal ni may ma ci occasion boo ma ci boo ma ci joxee occasion ne ma yàqal ko sunu borom ne ko dox la ndigal doo man ci moom dara yaramam alalam njabootam loo ci man defal ne na faraja iblis ila sattil bahr fa saraxa sarqatan laa yabqaa jinniyun wala jin wala jinniyan illa ijtamau indahu qaaluhu maa asaabak qaal inni wajadtu fursatan maa wajadtu mislahu munsu axrajtu aadama alayhi salaam min al janna fa ainu ala ayuba bi mu ñëwee wàcc ca tafes ga yuuxu fu baatam yem jinne yu góor yéeg jinne yu jigéen yi ñëpp dajaloo ca kanamam ndax iblis mooy seen kilifa ni ko mbaa jàmm la yow sang bi mbaa jàmm la lu xew mu leen yàlla may na ma occasion boo xamante ni musuma am occasion bu ne mel ci jaamam bu mu gërëm dippi ma génnee aadama ca àjjana ba léegi mënatuma am occasion bu neexee nii dama bëgg ngeen dimbali ma ci ayuba am na alal ma ngay jaamu yàlla jongo yaa ngi ko wër am na njaboot jeexalul dara am na surga lépp am na ko waaye nag la ca gën a métti te gën ma caa métti mooy sant yàlla ak joon gi mu doonu jullit dama bëgg mu mu tubbi mbaa mu saalit seytaan yi nag dugg ci àll bi la ñu jëkk a def mooy taal alal ji alal ji moo amoon lépp la ñu mujj soppi safara mu xëy xëy takk ni jëpp dinay am leele léeg ju juñ dul génne asaka wala juñ dul dimbalee wala juñ dul génnee àq nit ñi day jékki-jékki ni jëpp kii nag natt bi yàlla la moo tax moom mu am loolu jinne yi taal alal ji def lépp doom jur gi gi mu amoon mu xar yeeg nag lépp dee ci àll bi weex taal ngoob tool ya mu dara ñoru ci ah iblis daal di ñëw ci ayuba wa huwa qaimun yusalli fi lmihrab fa qaal ataabudu rabbaka fi durrika wa qad arsala naaran min alsama daal di ñëw nag fekk yonent yàlla ba di jaamu yàlla mu nu ko yow de am nga loo am nga loo def yaa ngi jaamu yàlla ne dangay ngay julli te yow yàlla natt la natt bu bu rëy bu toll ne bii nag yi dee nañu jur gi dee nañu dee nga maam li nga béyoon dara ñoru ci nga naan da ngay julli dee nga dem lijjën sa lijjën sa bopp lijjën sa alal ji moo gën gis nga iblis dinay naxe noonu nit dinay naxe noonu nit léeg-léeg nit am alal joo xamante ni. jàpp na ni moo ko may boppam ba fi ne ni bu gëmmee nelaw rek alal di dem ba tax na dem jàkka ja mbaa dem ca xew mbaa dimbali mbokk mbaa dem fee say bokk nekk wala nga àqi dëkkandoo danga nga koy asaf lépp teg fële yow jàpp nga yow daw rek daar daar te xamoo ni daw daw daw kësëng rek yoon jalaa yu ba bi ko Iblis waxee loolu mu ngi julli rek di julli rek faalewu ko néewu ko luy lii néewu ko luy laa mu ni ko e, mu kon ne ne xatta faraga min asalaati ba mu bari ci julli gi ayooba door koy tontu nag ni alhamdulillahi allasi aataani suma axas maa ngi sant yàlla mi nga xam ni moo ma joxoon lii te moo ko jël ah iblis nag ndax dafa woon na ni kii alal la ko jiital ndax li mu jàppoon ni képp ko am alal ku nekk topp sa bakkan ndekete kon nax na boppam alhamdulilah alhamdulilahi lazi aataani suma axasa moo ma joxoon moo moo ma jël moo ko jël yàlla ma ko joxoon moo ko jël alhamdulilah nee na mu ko ne ak julleem ayuba amoon na fukki doom ak ak ak ñeent ñeent ñi juróom-ñett ñëpp góor lañu juróom-benn yi di ay jigéen waaye ñoom bëggante woon nañu bëggante boo xam ne bu añ musaan a jot ñoom ñëpp dañu daan dajaloo ci génn kër di fa añandoo Iblis xiir waa këram ñi ñu bàyyi ba ñu dajaloo ci génn kër ñu ñu mabbal kër ga ci seen kaw ñoom ñëpp dee allahu akbar mu ñëwaat ci yonent yàlla Ayuba ñu ko waaw waxal sa doom yëpp dee nañ mën na yàlla ji ngay jaamu xamoo lu tax nga di ko jaamu alal mu yàq doom mu rey yamul foofa jabar yeeg jabar yëpp ñëw nag ñaan ko baat nag ni ko nag yow yow daal ñun dañu bëgg dañu bëgg daal yow daal mooy loolu waaye ayuba ni ko alhamdulillahi allazi aataani suma axas min ni jërëjëf yàlla moo ma ko joxoon de moo ko jël iblis gën a jaaxle yàq na alal ja ayoba faalewu ko mu jaar ci doom yi rey faalewu ko iblis daldi di gën a mer nag daldi ëf ngelaw ci yaramu yonent yàlla ayuba yi alayhi gis nga inna sheytaana yajri alal insaani majriya dam seytaane yàlla may na ko boo xamante ne man mii nekk ndakaaru gii mën naa nekk fi di xuloo bay bëgg a xeex am ku nekk ca ndar di xuloo bay bëgg a xeex am ku nekk Ziguinchor di xuloo bay bëgg xeex am nekk mbuur di xuloo bay bëgg a xeex am ku nekk Louga di xuloo bay bëgg a xeex ñépp ñu ne seytaane kon seytaane yàlla jox na ko pouvoir yajri alal insaani majrihim ni sa deret di dawe sa yaram wi noonu la seytaane amee pouvoir mën koo dawe ci sa yaram yaramu yaram ku mën a doon seytaane ëpp na yaramu yont yàlla ayuba ñu ne def na cee virus waaye dafa dafa dafa tolloo jamonoy virus rek moo tax ñu jël virus waaye der dermatologie moo doon feebaru yontu yàlla ayuba waaye dañ koy abal prix rek mu def def par exemple virus <laughs> coronavirus mu doon virus boo xamante ni yaram wépp wépp wépp yàqu na mujj na yont yàlla ayuba jeex takk di ŋiis wow koŋ mujj na fi mu tëdd max gi dañu ñëw di lekk ci yaram wi muy wëlbatiku jabar yépp dem seen yoon ba mu des aawa ba moo tax aawa yi ñoo baax aawa bi moom yaayam yonent yàlla Yuusuf ma ko jur kon la ma doon wax ci tànn soxna mooy loola yonent yàlla Ayuba sonn na jabar ji mu dese mooy yëkkati mooy toppatoo lépp moo koy def ndeysaan taratul dara ah ndeysaan mujj na jabar ji mooy dem sax di lijjanti ca dëkk ba lu mu togg léegi mu faratu fa as ak ñaari xarit keccex ñëw andi koy defal laaxu bisaab wala laaxu caaxaan ñu màtt ci tam mus ndox ci koo xamante ni oto yi nga daan gaare kenn xamul mu toll bu doon ci jamono R plus 3 yi muy luy li muy fayee ko di ko luyee kenn xamul mu toll nag yi xar yeeg bëy yi tool yi tool yi mango yi giléem yi yëpp yàlla seetaan iblis yàq lépp waaye la ko yàlla waxoon ni ko xol ba ak ruux ga maa ne loolu la dese muy sant yàlla rek benn bis nag soxna si ndeysaan xam naa lijjanti lijjanti affaire bi xaw a dëgër jotul dara euh, mu dem ca dëkk ba nag xaw fa yàgg yont yàlla ayuba ndeysaan nit rek la mu xaw a fiir ni kii kat mbaadu li ma nekk ci situation moo tax mu dem ci dëkk ba di dox tànk yu yàlla yëgul kon boo demee mi ngi def leneen laa ilaha illallah waaye bu ñëwee fi dinaa ko dóor téeméeri yar su ma su ma sama feebar dinaa ko dóor téeméeri yar ah waxu yonent la de waaye nag dafa juum ndax dig na ko ci ñaaw njort dinaa ko dóor téeméeri yar ci ñaaw njort loolu charia du àttee noonu moo tax bi charia ñëwee ci yontel Muhammad bi muy leeral loolu ka ngay doo téeméer yar ñeenti nit a cay to ñeenti nit a koy gis ñeent yu bokkul fu ñu jëm xamantewuñu ñu yam ca waxuñu kenn ka gis naan kaay xool mu daw déedéet mu nga àtte bu gudd la xam naa dañu bañ perdre suñu temps foofu waaye du ñàkk dañ ci ñëw ci ay jamono yàlla ayuba soxna si ñëw insaan mu gëdd ko ñu ko nijaay tee ngaa ñaan yàlla sa feebar bii ah nattu la ñaan sa borom mu mu may la nga wir moo gën ñaanal sa boroom mu ni dama ko ñaan ndax gis na ma gis dama ko ñaan ndax gis na ma comme gis na ma ah dana dana ko faj waaye ñaan moom du jaar ma ci sonn du jaar ma ci sonn de waaye ndeysaan mu nekk ca nekk ca rek ba bis yàlla ilham ko mu war a ñaan mu door a ñaan suñu boroom nag suñu borom subhaanahu bi nga xam ni dara teewu ko ci la ñaane saafara sa sunu boroom ni ko muñ nga waaye lu jiitu muñ gi xam nga dafa am bis rek yun yaa ayuba di bo di di wonk maanaam bindi daani mm. ci sunu borom ne ko ah ayuba da ngay saalit mu ni ko déedéet saalit yi mu wulaay mu ne ko wonk yi nag mu ne ko déedéet dama yéemu ci yow rek mu ni ko loolu la yéem ci man mu ne ko dama xam ni yow mii ni nga ma defoon ma rafet dàq ci góor ñi taaru àgg ca kaw jonga may wër ma doom yi wër ma xaalis bu dul jeex ak alal lépp ma am ko yow ma mayoon loolu nga xëy di nangu loolu di nangu loolu di nangu loolu ba man man képp ma ni cundung desewu ma dërëm bu xët loolu sama jabar ji képp man la yow yaay gàcce ngaa la ma yaay ngand yaay ponkal yow moom yow xaw ma kan waaye yow rek yow dong suñu borom ne ko alhamdulilah loolu rek laa bëggoon iblis dee na gàcce ndax la ma waxante woon ak moom mu defee ni alal yi tax nga may jaamu dem nga ba yoratul dërëm ñépp wan la ginnaaw nga dellu ci ci man kon nag ni'mal abdu innahu awwab sama jaam bi daal moo baax moo baax moo garmi moo moo tedd mu ngoog sunu boom ni nga léegi nag dinaa la faj dinaa la faj euh, te dangay dem nga këdd sa tànk ci suuf si boo ko këddee dana am ndox mu génn ndox mu tàng la moo xamante ni da koy sangoo naan ci mu daal di wér ndox moomu mu nañ tuddee euh, kimia mu ngoog wala boog euh, kibrit laa bëggoon wax ndox mu mu tudd kibrit ñuy liggéey kimia xam nañu ko ndox la moo xamante ni day tàng am na ci dëkk arab yi sax ba ci Maroc foo xamante nii wax nañ ni euh, fu ñu naan mu lay yàqu yàgg naa foofu la dëkk boobu ndox mu mel ni mii am na fa wax day faj rhumatisme borom xam-xam yi bari dañ fay dem ñu am alal dañ fay dem day faj ay rhumatisme ay feer yi feebar yi eh, sciatique yooyu muy ay sidit ak yu ni mel feebar boobu moom lañ tuddee feebaru dermatologie moom la suñu borom subhanahu wa taala eh, eh, doon doon moom la faje yonent la ayuba alayhi salaatu wasalaam al Moustapha Maraaxi kooku ab euh, boroom xam-xam bu rëy la tafsirul waadix yu bëree bëri nii su bëggee dellu si li muy wax boo ko xoolee foofu di nga ko gis ñoom ñoo wax feebar bi ak ni nga xamante noonu la ko sunu borom subhaanahu wa taala euh, faje lii ma doon tënk lépp nag ci yonte la ayuba soo demee ci suuratu Saad aaya 42 di nga fa di nga fa fekk soo demee ci suuratu anbiyaa itam. ay 83 di fekk lii mu doon wax sunu borom nee na wazkur abdana ayuba is naada rabbahu inni massaniya cheytaan bi nasbin kon ki bëgg a weddi ni cheytaan ne amul pourvoir mën a feebaral nitu yàlla wala yonente bi yàlla lii alquran moo ko wax léeg-léeg nit ñi di di layal di layal yonent yi ni ah yonent de yàlla du ko yàlla du ko yónni ba ba di ko seetaane nangam wala nangam ak nangam loolu yëpp xelum doomu aadama ak xir gu ñu xir ci yàlla ba jàpp nañu ak nitam du amuk nattu waaye wala takun ka saaxibil xóoti kay gisoon nañ ko fi su yonent yàlla Muhammad alquran di ko nettali ni ko is waskur fàttalikul abdana ayuba sunu jaam boobu ñu wax ayuba ba mu feebaree feebar boo tar is naa daamu ca la raari wooye rabbahu boromam daan inni yow sama borom massan ya seytaan gañe na ma lor na ma bi nus bin ci euh, corona wala boog ci virus wala ci lu mën a doon wa azabin rek muy nekk ak mbugal sunu borom ne ko urkub bi rijlika haasa muxtasalun baarid wa sharaab wa hab naa lahu wa hab naa lahu ahlahu wa mislahum maahum rahmatan minna wa zikra li ulil baab sadaq la asli aaye 83 surtout anbiya sunu ba moo ne ko urkud wéqal kët daal birij la ko say tànk ci suuf si mu génnee ndox bu sedd wala bu tàng boo xam ne dañ cay naan muxtasilul nga sangu ca naan ca sangu ca ba mu ko defee nag wahab lanaa lahu ahlahu ñu dellawaat ko yaram wa na mu meloon delloo xam njaboot ga rahmatan muy yërmande min naa bu bàyyi ko ci ñun wa zikra tamit mu nekk nag ab njàngat li ulil albaab ci ñi nga xamante ni ñoo am xel tey xalaat mooy ñi nga xamante ñoo tolloo ak coré ñu tolloo woon ak peste ñu tolloo ak coronavirus ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ñu xam ni kon ñaan ci la bokk ak dellu ci yàlla ci la bokk lépp lu ñu mën a def nañu dellu ci yàlla te xam ni moom mii mooy faj mooy saafara këddal sa tànk ci suuf ndox mi génn ah yàllaay faj yonent yàlla nuux kër ba nga ko waa kër mi meree ci woote gi muy woote yàlla daf leen nattoo ngoos-ngoos feebaru ngoos-ngoos mooy wokkatu goo xamante ne mag ñeeg gone yi dañ daan wokkatu ba seen wéy deretal waaye xam lu ko faj ba ko yàlla ne yettal gaal ga moo yett gaal ga ba pare gaa yi dem di sabote gaal ga dem di fa def ay ginnaaw kër difa difa difa difa cabinet laa ilaha illallah benn waaye daal moo yéeg doon fa cabinet ngir saboté noox baraste ko loxoom laal euh, bagage yi mooy cabinet ya ndaka mu ko laal ci loxo yi rek mu wow koŋ mu ni ya lii ka day kon day faj waa dëkk bépp fàq na ñëw ñiit yañ fa defoon yëpp raaxoo ko taaxoo ko ba wér ca gis nga <laughs> yàlla yàlla rek kadib yàlla nag moo tax corona mii nañ ci dellu ci yàlla boo demee ci surtout saat sunu boroom nee na wa ayuba isnaada rabbahu inni massaniya dur wa anta arhamu rahimin fastajabna lahu fa kashafna ma bihi min ad durri wa aataynaahu ahlahu wa mislahum maahum rahmatan min indina wa zikra lil abidin surtout anbiya mbokk yi mu ngi teg sunu baaram foofu sunu borom nee na ayuba mii ba mu ne yàlla loru naa lottu naa jaaxle naa sama xam-xam jeex na yàlla yërëm ma ndax yow yaay ka nga xamante ne yaay yërëmaa kon nee na fastajabnaa lahu na ma ko nangul moo tax ñi woote suñu sëriñ si li ngeen di def baax na ndax ñun ngeen di defal te ñun dañ leen a gëm te doo ànd ak yéen mais nag jaadoon na nag ñu woon ak président de la république ñu mobiliser wu ñi ci ay jullit ñu jàng alquran ak joxe sarax nag ndax yéen seen ak ñaan bokkul ak ñaanu keneen géntu président de la république bokkul ak sama gént man géntu sëñ Muntaqa gént sëñ Babacar Sy Mansour gént Baye Ablaye ak mag ñi fi nekk ñëpp seeni gént ñi jiite mbooloo seen gént li muy firi bokkul ak ñun suñu gént li muy firi kon seen ñaan ak seen toroxlu li muy firi bokkul ak ñun suñu ñaan ak suñu toroxlu ab jaam buy toroxlu du nuroo ak sangam bi ñëpp di toroxlul mu wëlbati ko toroxlu kon na leen toroxlu dellu ci yàlla comme ni ko yonent yàlla Ayuba defe woon toroxlu dellu ci yàlla te tuub kon ne ne nekk zikra lil abidina dana nekk pàttali ko ci jaam yi yàlla yépp yi ñëw ilaa yawmi diin mbokk yi déglu ñu ngi leen di tàggu foofu teg suñu baaram incha allah di yont yont yàlla ayuba liñ ci xamoon ñun moo jeex liñ ci doon gëstu moo ci moo jeex waaye jàppuñu ni daa jeex xëy na am na lu bari luñ ci tëb ndax am na ndax dangay xam-xam ci xam-xam tuuti rek sa moroom xam la ca des waaye xam lépp moom bariwul fu ko ñëpp mën a amee kon su ko defee ñëw teg foofu suñu baaraam incha allah di leen dig beneen yonent ci kattanu suñu borom subhaanahu wa taala ñu ngi dëgmal koor incha allah yal na ci yàlla yu boog jàmm coronavirus yal na fi jóge jeex fi takk takk takk ba nit ñi mën a woor jaamu ji yàlla dellu ci jàkka ak jumaa ya dellu ca conférence yaag waxtaan yaag waxtaani diina ya yàlla delloo si lu ñu ko xeeboon nañu ko waaye ndekete defoon nga lu rëy ndeke lu rëy la ñu amoon ñoo ko xamul woon waaye boo nu joxee la nga nu joxoon dootuñu def la nu defoon la maam Moussa Ka waxoon mooy loolu kon jërë ngeen jëf seen mbokk Oustaz Alioune Mbaye la woon ci waxtaan wi di gërëm Bab Ablaye Dieye mi nekkoon ci technique bi incha allah Oustaz Alioune Sall dana ñëw léegi ci tafsir bi mu daane lay ñëw ci alaaji Mbàkke si la ci xamtu asalaamaaleykum